waaye ñu di ko célébrer mooy gàmm moo jur gàmmuy tuuti yi bis bu ñuy màggalal Seexul Xaaji Malik amul ey bu ko neexoon mu bis bu rëy aka def lu rëy luñ ko mën a màggalee waaye mu teg ko fi toujours dinaa koy faral di wax keroog bi mu jegee ndar ci gouverneur général bis boobu bis boobu bu maam alaaji Malik doon keneen bis booboy gën a rëy ci senegal konoon buntu gouverneur buñ ko màggalee ndar du fa xaj xam nga lu tax gouvernement bi mu ko posé question ba paré daf ko né yow dañ ma wax né ma na la yóbbu yow sëriñ ci ñi japp fi man gouverneur général ma leen ñak wolu mais yow président France ci bopam mo né yow l'homme dangereux pire c'est toi yow yaay ci graw deug il paraît que yaa ngi am ben àll fële ay ay ponkal ñoo la ruwër ngay tek ay livre di wax ñi photo su di tëb di dal té ay centaine de ay juni juni personne kon yow mi lañ né nañ ne éliminé ñi japp jàpp ya graw waaye dama lay posé ñetti benn question rek laa lay laaj benn oui ou boo nee waaw dem boo nee déet ma balas ban question mu ne ko nee nañ ma yaa doon Cheikh Oumar waaw nga toog waaw nga dem mu ne ko ko doon ko mu ne ko la yow dawoo deux heures mu ne ko boo gisee koy daw deux heures xam ko man maay doona Cheikh Tidiane Cheikh Oumar mu ne Cheikh Oumar da doon xeex ak ñun mu ne ma ne dama leen di xeex di ah da ngay mu ne way Cheikh Omar daa yoroon fetal di ñu xeex mu ne man it maa ngi ak sama fetal bi Cheikh daa yoroon jaasi mu ne man it maa ngi sama jaasi bi Cheikh Omar dafa yoroon fett mu ne man maa ngi sama fett bi an fetal mu génnee big bi te bind ci kayit yi mu weex tàll di dugg ci góoru dënn yàlla ma di leen ko jàngal ñi di ko mokkal ba lu ñu tiire jam fett mu génnee kurus gi <laughs> ne kii fii laay tëju ci néeg bi di wàccee per par per yàlla di ma wuy ci xadratu ala ba lu ma bëgg man ko waaw am sa jaasi walla sa kënu mu fëgg dënnam ne li ma ci denc ci ay anwaaru xam-xam lu ma bëgg a def ci laa koy def gouverneur général rek na ko yow da ngaa dof bu fekkee lii rek <laughs> waay yow sa pexe sotteegul ñun dañoo dañoo lu leer lu concret ngay wax ne ko yow yi nga mun ne ko li ma war rek a concret bilaay balaa maa tàggoo yéen ngeen xam ne caaxaan ne gouverneur pare nga yow pare nga mu ne waa pare naa mu ne ko man dama lay poser question su ma waxoon mu ne ko boo ma yóbbu la mu ne ko waxoo dëgg tu mu ne man mu ne ko oui toi lu tax mu ne ko boo gisee kuy fanaan ci loxo tubaab minute nga xàmmee ko ñi tubaab di këlli këlli alaaji Maali bokk ci ñi wut seen yëfu bopp la tubaab di këlli këlli man rasulullaay la Cheikh Tidiane doyloo Cheikh Tidiane doyloo rasulullaay rasulullaay doyloo Cheikh Tidiane Cheikh Tidiane doyloo Cheikh Omar Cheikh Omar doyloo ma te juddoo guma ma fekk fi sama ndono di ko doxal ku ma laal keneen ngay dajee ku man waxoo dëgg man duma fanaan ci loxo tubaab mané bu Maodo bëggoon bopam bis bobu buñ ko magalé luñuy magal ci réew mi ñu faté kon mo doon abou Bakr Siddiq tasdiqan wa hubban wa wilaan mo doon abou mo doon Faruq Omar far mo doon Omar ibn al Xataab ci lan ci ñet bi tasdiidi wal yaqiini wal bi tasdiqi wal yaqiini wal azm deugal gu yonent bi babakar bu bu bu bu bu Omar daan deugal yonent bi wóolu gum wóolu pas-pas bu mu amoon digganteem ak rasulillahi bu fekkee am na ko ko doon góor gi mooy Cheikhul Hadji Malick moo doon ibnu Affan ci lan xayaan wa zuhdan wa saqaan ci kersa gu sëkk moo doon Omar moo doon Ousmane ci dëddu àdduna moo doon usmaan ci saqa ci tabe lool Cheikh Alhaaji Malick a dëddu àdduna Mame Alhaaji Malick a dëddu àdduna banaan talaqtuka yaa dunia salaasan wala ura bi tawfiqi rabbi nahwa wajhika naadira talaxtuka parce que fase naa la yaa dunia yow àdduna salaasan ñetti yoon wala ura fu ma gis man alaaji maali bi tawfiq rabbi nax waja sama bët bii dootuma ko teg ci àdduna bu fekkee àdduna jigéen la man alaaji maalik fase naa ko ñetti yoon te dootuma ko fay fayle def naa ko baax de saw ji bu amoon beneen jëkkër ma alaaji maalik du ko fay kooku bàyyi na xel at bàyyiwul xel àdduna nekkiit nitu yàlla boo xam ne moom cheikh alhaaji malik radiallahu taala li gën a yéeme ci mbiru cheikh alhaaji malik radiallahu taala anhu moo di gëm ak bëgg gu mu bëgg cheikh na tidiane yi sërif noonu na bu ma neexoon maa am tariqa ni ko ñëpp wute mu mu yegg fu kenn dul yaakaar waaye xam ngeen lu tax ñu ne amun a damaanu nabiyullahi na fi inqidaaihi ila axiri dëhri ani cheikh xurira Moussa Niang benn waaye moo ñëw sa aj Maalik nuyu ko ne ko Faas Cheikh Tidiane laa jógee kañ nga ñëw mun a démb loo fa jëlee dara mu ne ko bi may dox ci mbedd yi daje naa